dama dem ci audience bi ñoom ñoo ma wax ma génn ci coalition bi loolu. Mhm. leeral nañ ko ah, wax naa ko Ousmane Sonko leer ma dellu si ci mbiru. Mhm. business bi ngay wax. Mhm. man sama liggéey. loolu laa loolu xam naa ne loolu nga yàkkamti ma wax ko parce que xam nga loolu moo gën a moo gën a yomb ci sama waxtaan. man sama liggéey mooy. consultant international la. damay dimbale ay état ak ay entreprise bu ñu amee ay projet ma won leen fu ñuy jaar ba ut xaalis pour financer ko fu ñuy jaar. ba organiser ñi ciy dugal seen loxo. Hmm. ma def ko Sénégal fii def naa ko fii nag naa fi secrétaire général du ministère u Karim hmm. trois ans bi ma koy nekk dama amoon suma liggéey ñu woo ma sama réew ma bàyyi ko ñëw boobu defaguma politique hmm. ma def ko aussi ci yeneen réew yu bare am ay entrepreneur sénégalais yoo xam ne bu ñu amee projet bitim réew dañu ma naan yow dañu bëgg nga dimbale ñu ci ni ñuy structurer finance Pierre Goudiaby Atepa dafa am mm-hmm. projet bu rëy mm-hmm. ci benn réew bu may liggéey mm-hmm. projet boo xam ne ay milliards yi dollars projet boobu man maa koy concevoir ak moom di ko dimbale ci financement bi te dimbale leen ñu rek ba bu ci benn cat dugg. Mhm. ah yàlla may ko mu nekk noo loolu bokkul sama sujet. Mhm. non non non bokkul sama sujet et de la même façon man du ma waxtaan ak Pierre Goudiaby affaire politique. Mhm. parce que Pierre Goudiaby bi élection yi pare la bàyyi politique. donc man du ñu waxtaan politique. liggéey bi du woon affaire Pierre Goudiaby Atepa. c'est un expert boo xam ne bitim réew la nekk amoon rendez-vous ak président depuis le mois d'avril. mbas mee tax amu ko bi mu ko amee. président bi xam ne sama xarit la mu ànd ak xaritam bi nga xam ne moo xam président ñu nekk ñeent. Mhm. donc audience bi ñeent la ñu woon. Mhm. ñu waxtaanee affaire convention fiscale boo xam ne Sénégal daf ko war a ratifié. donc donc donc audience bi monsieur Camara. aw ma ci déglu aw ma ci intérêt déglu est-ce que gënul nekk business que politique. non non du woon business non non non loolu aussi non non non dañ koy wax. parce que kooku dafa am waxam bu mu doon wax indi ko pour njëriñam ak njëriñu Sénégal mhm. président woo ma pour wax ak man mbiru politique ci benn jataay bi nag la ñu defee lépp loolu weesu na leer xam nga lii sax dafa nekk loo xam ne normalement jaaduwul sax nga génn ci audience di takk rajo di expliquer mais dañu ma force pour may expliquer parce que dañ ci bugg a boole jaxase boo xam ne bokk ci bokk mais man diggéewuma ak kenn que su ma duggee audience damay wax ne maa ngi dugg su ma génnee ma ne génn naa lii laa foofu parce que loolu bokkul ci suñu culture homme d'état donc ñun du ñu takk rajo ci audience li am solo mooy lan nga fa wax ak lan nga fa def négocier wuñu fa waxante wuñ fa waxu pos waxu réew mi lañ fa wax constaté de ku nekk dafa am yoonam ku nekk tiré na ci conséquence am mhm. bu ëllëgee su ma woowaatee ma ñëwaat toogaat ak moom bu ma waxee réew mi fu mu ko jëmalee ma wax ko fu ma ko jëmalee hmm. bu dee am na place yoo xam ne mun nañ ko